bismillahi rahmaani rahim ibnu omar radiallahu anhuma dafay nettali mu ne dafa amoon benn waay bu ñëw si yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam mu ne ko yow yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallam kan la yàlla gën a bëgg itam ban jëf la wa taala gën a bëgg yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg mooy koo xam ne moo gën a mun njëriñ jaamu yàlla yi di leen dimbali ci liy neex yàlla ak di leen jàppale mu ne nag jëf ji yàlla gën a bëgg moom mooy kontaante boo xam ne dañ koy dugal ci sa xolu mbokk jullit nga kontaan ko si li la gërëm subhaanahu wa taala mu ne walla nga fajal ko nga fajal ko njàkkareem walla nga fayal ko borom walla nga dakkal ko xiifam bi maanaam nga jox ko mu lekk mu ne nag man muhammad salaa ma ànd sama benn mbokk ma fajal ko aajom moo ma gënal ma toog sama jàkk jii di Madina di si jaamu yàlla lu toll nii weer mu itam képp koo xam ne danga tee samer mer borom bi subhaanahu dina la suturaal euh, ci sa mbóot waaye tam dina la sàmmal sa awra képp koo xam itam danga mere sa mbokk jullit te nga mun faj sa nga baal ko ngir yàlla borom bi bis dina feesal dell sa xol li nga may moom mooy sécurité ak dal ba nga xam ne doo tiit te doo jàkk mu ne itam képp koo xam ne danga ànd ak sa mbokk jullit nga fajal ko aajom nga dox ba mu mu faju bispenc penc borom bi dina saxal say tànk ci kaw siraat ba nga xam ne doo daanu xadis bi tabaraani soloon na ko Albani wéral na ko leeral diine